en tant qu'avocat lu wax benn parent de def manifester non je ne le ferai jamais dañ topp yoon parce que man yoon laay topp j'ai prêté serment mais maa ngi ñaax aussi procureur mu def tout son possible mu xool vraiment que dañuy ay père de famille lañu dañ doon exercer seeni droit droit yooyu mooy naka la terre ak état ñu leen di eh, dédommager voilà li nga propose dafa néew ñu xool nag ndax du dem beneen montant je pense que nag mën nañ négocier avec les autorités compétentes moo gën ji et bu ñu si kër googu noonu li naan dañ doon manifeste manifeste wu dañ doon xool naka la def ba état bi daal di leen jox na mbay bu topp boo xamante ni am solo lool parce que bu ñu leen génnee foofu aussi amuñu fu ñu dëkk ay borom njaboot ay Sénégalais lañu donc droit bi c'est extrêmement important mais aussi il faut benn souplesse ni day euh, jël préoccupation euh, société bi ak droit bi de façon générale. est-ce qu'on peut parler de nos. alors jeunes yi ñu jàpp brigade dafay dafay dafay brigade euh, Sébikotane moo leen jàpp garder leen à ñu leen déféré depuis lundi alors depuis lundi ba tey ñu ngi fi retour parquet ñu leen di toppee ñaari délit bi njëkk mooy participation à un attroupement non autorisé cest à que. dañu fekkee attroupement ab mbooloo boo xamante ni euh, nguur autorisé wu. bi mooy outrage à agent dans l' exercice de ses fonctions c'est-à-dire que dañ doon buntu xatal euh, ab gendarme wala policier bu nekkoon ci liggéeyam ñaari délits yooyu dañ leen toppee ci kaw loolu nag lañ leen defere fii d' abord Rufisque dañ dëkk taal parquet bu Rufisque délégué procureur Rufisque indi leen fii. devant le procureur de la République, euh, grande instance en tant que Bon, depuis dimanche, depuis lundi ba tey dañu passé naa bi leen gis loolu laa bëggoon wax comme précision. ñoom ñaata lañu. alors pour l'instant ils voilà fukki nit ak euh, juróom-ñeent. Hmm. ñoo ñooy ñoo nekk si camp. ci camp pour par rapport ak euh, li ñu war am ak procureur tey jii yow par rapport ak bi nga am ban yaakaar moom nga ci am par alors am naa ci yaakaar bu rafet parce que xaw ma comprendre bu lu tax euh, def na retour parce que retour parquet en général bu amee infraction boo xamante dañ ko euh, dañ koy dañ koy yóbbu en général ci lañuy def retour parquet su fekkee infraction bi wala crime bi day dem euh, cabinet d'instruction dañuy faral di def retour parquet mais flagrant délit bon loolu d'habitude mosul am euh, retour parquet maintenant procureur am na ay préoccupation am na benn sens politique pénale moo xam lu tax mu yóbbu leen retour parquet mais daanaka daal woon am kanam parce que lii euh, délit la flagrant délit ah dañ jàpp ci loxo dans le sac alors je ne comprends moo tax peut-être procureur moo xam yan raison moo tax defal leen ko suñu parquet pour l'instant moom ba léegi xamaguma lu tax mu def loolu. alors vis-à-vis des chefs d'accusation lan nga yaakaar ne dans le futur mën na ci sentence finale euh, li ma xam du wax fii si mbedd mi du gis dossier bi parce que y a secret d'enquête mais euh, li ma mën a wax mooy que ne ñoom d'ailleurs je parle. à la présence de mes parents ñu si bëri si ñoom bi leen jàpp te keneen ñu ngi nekkoon si benn kër donc est ce que attroupement am na si benn kër lañ nekkoon ah kër benn nit impacté terre parce que dañ doon réunion pour xool naka la état bi dédommagé waa impacte yi état bi dafa la pro benn somme bu néew ñoom nag joxe bi parce que yaa si l'enquête mais euh, li ma mën a wax mooy que ñoom d' ailleurs je à la présence des parents ñu si bëri si ñoom dañ leen jàpp keneen ñu ngi nekkoon si benn kër donc est ce que attroupement am na si benn kër lañ nekkoon ah kër benn nit impacté terre parce que dañ doon réunion pour xool naka la état bi dédommagé waa impacté yi état bi dafa la pro benn somme bu néew ñoom nag ñu ne duñ ko nangu te ça si comprend aussi c' est des famille ay pères famille la am na ñoo xam dañuy dajale pendant dix ans de travail yi mm. dajale loolu ab kër état xëy naan da di jënd mais en retour état war na jox benn mu bu conséquent mm-hmm. loolu nag moo tax ñu daje si benn kër seen benn xarit impacté waaw pour xool yan solution la ñu adopté gis maire xool kan mooy dossier bi ñu jëm a négocier ci la gendarme ñëw nag ay quatre pick-up cinq je pense que quand même sept auto sept auto sept je pense que parce que je pense que force il est vrai que nul n'a le droit quand même de faire face à l'État, à un gendarme, à un policier. Les forces si ay des vendeurs de drogue ay nit mais ñi dañuy nit defuñ dara loo xamante ni garaaw la donc fallait ñu comprendre lu euh, démarche bi pour autant quand même procureur de yore dossier bi instant bii décide day am te loolu aussi il faut ñu wax si aussi retour parquet dafa métti parce que ñoom depuis ba léegi ñu ngi entre CAF ak commissariat central ci ab loo xamante ni dañu toppee comme délit étant un délit dootul parquet daana am fekkente ne procureur day xool ban cabinet d'instruction la koy la koy jox mais pour ce qui est de ce cas là yaakaaruma aussi mu def instruction parce dafa leer dañ jàpp en flagrant délit su fekkee dañu ñoom la ñu wax ak dossier bi donc de sorte que ñun vraiment am nañu yaakaar que ne. bu procureur pare euh, dinañ xool vraiment li ñu war a def pour ñu jëm leen bàyyi libéré leen parce que duñu ay délinquants duñu ay criminels. bu ma la déggee bu il paraît que ni y a des contestations de l' vis-à-vis de démarche mais également aussi ci biir dossier bi ak d' euh, que je suis je suis pour les libertés publiques et individuelles il est vrai que. état dafa am pouvoir régalien état dañ ko war a respecter mais il faut que benn équilibre entre le respect de la force publique, mais aussi le respect des libertés publiques individuelles. Parce que c'est des pères de famille. am na ñoo xamante am nañu doom ñu ngi ñoom si kii bi si kaab bi loolu c'est assez grave quand même am na ñoo xamante ay père de famille lañu seen jabar ngi wasin ñii seen jabar ngi feebar ñii seen doom yaa waaye yaa ngi war a école mais boo ko xoolee je pense que politique war na may benn vision boo xamante ni doo placer n'importe qui mandat de